bon man Ibrahima Sène laa tudd euh, en fait man maa initié rencontre parce que je suis un natif de cette commune de Ndiéyène Sirakh. lu waral tey seen génn génn bi li ko waral mooy dañu xool ne dëkk bi avancé wul commune bi demul parce que li ñu manqué dafa bari. tali amu fi lycée amu fi ndox mi ça pose problème courant amul ci dëkk yi donc jafe-jafe yu bare baree baree lycée amu fi également. et loolu mënuñu ko nangu parce que commune bi toll ni Ndiéyène Sirakh gën a rëy ci arrondissement Thiénaba nga xam ne tey Ngoundiane Touba Toul Ngundiane, Touba Toul, vraiment toutes ces communes-là maintenant disposent de ces infrastructures alors cette commune ne peut pas avancer. C'est inadmissible. 37 villages. 37 villages ak ay te en termes de population ñoo population ci arrondissement Thiénaba donc il est inadmissible que jusqu'à présent on n'est pas de lycée donc ay jafe-jafe la nga tey mhm. ndaje tey bi euh, dañu bëgg rek justement képp ku juddoo fii fi. co mhm. originaire ci commune bi ñëwaat ñu xool càmbar commune bi xool ba xam naka lañ mën a jëlee en charge son développement parce que quand même gens souffrent courant bi également pratiquement à dëkk yu ndaw yu xaw a mag yi ñoo am courant mm. te courant bu ñëwee bon comme Diène Sirax ay Nduuf Ndengler mooy dëkk yi nekk ci tali bi mais pratiquement boo xoolee en profondeur les autres villages amuñu courant amuñu courant donc loolu jafe-jafe la jol jol kadd jol Dakar Parar Bako Candigé donc Barjaak bi a jege Xombol amul courant c'est bi y a un côté ndox mi également comme ni ma leen ko waxee forage bi ñu fi tabax 1991 ko tabax ça ñaar fukki ak juróom-ñaar y' a problème parce que léegi population dafa yokku jur gi yokku na donc la demande devient importante donc naturellement il faut trouver une solution pour ça. li ci des également mooy lycée bi. donc lycée amul xale bu ñu amee seen brevet pratiquement du ñu am fu ñu dem donc ñu bëri dañuy perdre seen aussi il faut euh, président de la République son excellence kenn ku mais quand même bu fekkee ne intérêt askan wi il faut que tout le monde jóg soulever pour wax pour que ñu mën ko saafara donc on l'interpelle sur cette question là sur l'ensemble de ces difficultés de ces difficultés pour que mu ñëw jàppale tali également bu ngeen xoolee pratiquement ran-ran la donc euh, ran-ran bu métti bu bon la ni ñu ko defaree baaxul donc euh, véritablement dañu ñu goudronner tali bi ñu goudronner te boo xoolee ran-ran bi li muy créer ci wàllu ak ci wàllu environnement bi euh, dafa jéggi dayoo donc vraiment nañu buté métalli bi euh, ambulance bi aussi boo xoolee tey commune yu gën a ndaw Sénégal ambulance nous on ne avoir d' pourquoi tey bu ñu évacuer maladie c' est des parfois c' moi même qui prête mon véhicule ak ñeneen ak ñeneen donc c' est des il nous faut cette ambulance là pour pouvoir évacuer rapidement donc il faut que ñu mettre euh, ambulance bi ñu jot ci pour que mu mën ku feebar ñu mën ko yóbbu ci ay anam yu gaaw parce que quand même Ndiéyène toog ba euh, heure bi te mënul ambulance te boo xoolee am na ay gox goxaan yu gën a ndaw Ndiéyène tey am nañu ay ñaari ambulance ba ci ñetti ambulance donc vraiment nañu dimbali pour am mais surtout ko wax li ko waxaat léegi ndax da ngeen amul euh, ko mais ñu koy wut parce que saafara comme ni ma leen ko waxee tey bu ñu fi génnee ci rencontre bi dafa war a jeex ñi nga xam ne ñoo fi jiiti à chaque fois ils font des promesses ils font des promesses du moins excusez-moi dañuy def ay promesses di promettre nit ñi la nga ne du mas a am tali bii dañu waxoon ne fii ak trois ans dinañ ko goudronner tey pratiquement ñu ci quatrième année bi kenn goudronné wu donc loolu lépp ay jafe-jafe la nga xamee ni il faut ñu taxaw ci pour mu sotti ah donc prochaine rencontre bi incha allah bu ñu naree gisante waat def lu mel ni jaaru ndaje bu mag a mag ba nga xam ne dinañ oo intellectuel yëpp même ñu nekk Europe dina ñëw ñu waxtaan xool ba xam naka la mën def ba saafara jafe-jafe dëkk bi vice président conseil de la jeunesse bu Ndiéyène Sirakh nekk représentant euh, deuxième vice président comité de la jeunesse bu Ndiéyène Sirah. waaw tawat yi ñu fi wax yii yëpp si sa gis-gis. Euh, lan moo ko yéexal ba saafara yi amagul. waaw tawat yi moom kilifa yi fi nekk yéen leen fal ñu ngeen si seen ñetteelu mandat. yéen leen wóolu bu ngeen leen wóolu woon du ngeen leen. waaw loolu dëgg la depuis bi commune Ndiéyène Sirah nekkee 1972 ba léegi jafe-jafe yii nga xam ne ni moom laa bëgg wax dafay nekk te jógu fi muy li demee ni ci électricité bi comme ni ko gars yi waxee ci commune Ndiéyène rek ngay gis. fil haute tension tiim benn village dem ci beneen village te wàccewuñu ko fii rek lañ koy gis te bu leen neexee mën nañoo jël caméra yi ñu xool am dëkk yoo xam ne nii haute tension mi ngi leen romb te amuñu ci waaw dëkk yi nga xam ne nii ñoo ëpp ci commune si rax amuñu électricité dëkk yi ko fi am mooy dëkk yi nga xam ne nii mooy yu xaw a mag yi nga xam ne ni haute bi dafay jaar mais décentralisé wuñu ko mu dem ci yeneen amoo ndax boo demee ci village bu mel ni Jolkaat 900 mètres la ak fil rotation bi fi mu nekk te tey amul courant nga dem beneen village bu nekk bu mel ni ndimb en même temps deux village yu ñaama noonu mbarjaak noonu ay cent mètres am na fi yoo xam ne nii amuñu bu loolu wéyit ñu wax ci li nga xam ne nii mooy commune Ndiéyène dafa am ñaari route muy route numéro un xombol Ndiéyène Mbulaxteen Fissel Mbadaan Caajaay ñu bëgg ñu goudronné ko bu passé ñu amaat beneen seconde route boo xam ne nii Xombol Jol ñaaw Sanjara muy seule commune boo xam ne nii ñaar route yooyu moo ñu tëj ni ñu tëjee mooy commune Ndiéyène Sirakh amul dara dara dara loo xam ne nii boo fi bëggee dem comme ni ko ni ñi waxee mu yomb ci ñun. en même temps arrondissement Thiénaba ñu nekk commune bi nga xam ne nii ñoo fi dàq béy li ñuy béy fii lay yàqu parce que amuñu dara lu ko génnee amul dara lu ko évacuer te ñun ñu nekk foo xam ne nii ñun ñu ngi nekk ci diggante. Dakar ak Touba nekk ci diggante Tiwaawoon ak Mbuur ñu doon commune boo xam ne nii bu ñu jàppalee ñu dem parce que fi ñu nekk mooy xolu Sénégal mais amuñu dara dara dara dara xam ne ñëw bu loolu jàllee ci bu loolu jàllee ñu dem ci wàllu sant bi santé biit moo gën a sooxe fii waaw gars yi wax nañ ci duma ci dellu si waat bu loolu jàllee tak communautaire yi ñi nga xam ne nii day am ci commune yi ñun ñun yaakaar naa ne Sénégal ñu ko fi gën a yaayoo bari bu ma nee am na mais bariwul parce que ñun ñooy ñoo xam ne nii boo ñëwee tey jii di nga fekk ñu nekk sur le terrain di liggéey ak seen i moyens ñii nekk ci siyaan yi ñii nekk ci teen yi kon pourquoi pas ñun mënuñu cee am dak communautaire yooyu. Babacar ndax pare ngeen nag bi pour jot seen ak yéen waa Ndiéyène Sirakh ñun ci lañ nekk ndax depuis bi nga xamee ne nii ñun dañoo judd fekk fi suñuy mag ak suñuy waajur nekk ci ñun ci lañ nekk. Mm-hmm. man damay politique. man APR la bokk mais lii du politique lu ñu war a defal la man APR laa bokk mais lu ñu war defal la parce que bu élection jotee ñun dañuy dem voter comme tout le monde mais lan moo tax ñu oublier commune Ndiéyène Sirakh mu nekk ci commune yi gën a pauvre ci Sénégal. je m'appelle monsieur Sène. Euh, Ibrahima Sène donc euh, je suis natif de cette localité de Ndiéyène Sirakh de cette commune. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on a jugé nécessaire d'initier cette euh, rencontre pour permettre à toute la population de la commune, sans exception, de se réunir pour discuter sur les véritables problèmes de cette commune. Parce que comme vous l'avez si constaté, cette commune souffre de beaucoup de maux. Aujourd'hui, comparer cette commune aux autres communes qui nous entourent, elles ne sont même pas comparables. Parce que justement, on manque de tout. La commune de Ndiaye. Actuellement, sur le volet santé, il y a des difficultés. Et, et vous, vous ne pouvez pas imaginer que cette commune aujourd'hui a un seul poste de santé qui polarise 12 371 habitants. Malheureusement, ils ont juste un budget de 600 000 par année. C'est inadmissible. La dotation en médicaments, c'est 800 000 par année. C'est inadmissible. Aujourd'hui, la SEMI leur doit 3 millions, 3 milliards du moins. 3 millions du moins, excusez-moi. Donc tout ça, c'est des difficultés sur lesquelles, en tout cas, les gens doivent réfléchir pour trouver des solutions. Euh, par rapport aux infrastructures, comme vous le savez, en venant ici, certainement, vous avez bravé de la poussière parce que justement, jusqu'à il n'y a même pas un mètre de route bitumée. c'est une latérite qui a très mal faite. Alors, c'est une latérite qui est très mal faite. Et aujourd'hui, on réclame une route bitumée. que justement, comme vous Côté santé, il y a des problèmes sanitaires. Côté environnement également, il y a des problèmes. Et juste pour vous dire que, point de vue côté santé, actuellement, il y a une recrudescence des maladies pulmonaires. La tuberculose est revenue, alors qu'il n'y avait pas de tuberculose à Yéyen. Mais avec cette route la tuberculose est revenue. il faut... Il faut bitumer Et là, vraiment, on interpelle de la République, son Excellence M. Macky qu'il vienne énormément. Les autorités qui sont là, franchement, ce qu'ils disent et ce que la réalité est différente. C'est très différent. Donc nous demandons au président vraiment de nous venir en aide et véritablement de venir voir l'état de cette commune-là. Euh, L'autre aspect, c'est par rapport à tout ce qui est euh, secteur social de base. L'électricité, c'est un problème. Aujourd'hui, la couverture n'est pas complète. Et je crois que les pancartes, si vous les visualisez, partent delles

Il faut que les gens nous aident. Côté enseignement, imaginez-vous une commune comme Djayen Sira, qui n'a même pas de lycée. C'est inadmissible. Ouais. C'est inadmissible. Donc, c'est inadmissible aujourd'hui qu'on ait cette commune de cette envergure qui est la commune la plus grande dans l'arrondissement de Thiénaba et qui ne peut pas euh, avoir un lycée. C'est inadmissible. Nos enfants, s'ils réussissent au abandonnent leurs études. Donc il y a un taux euh, de déperdition scolaire extrêmement important. Parce que justement, les gosses, après avoir eu le BFM, n'ont pas une famille d'accueil. Donc ils n'ont pas une famille et certains sont obligés d'arrêter les études à, euh, au, troisième. Donc c'est pas normal, Donc il faut un lycée. Côté éducation également, actuellement qui ne peut plus absorber des élèves parce que justement on a le trop plein. Donc il faut une seconde école primaire élémentaire. Décidément, Mais également... Décidément, comme qui dirait que Ndiaye euh, euh, manque de tout. de tout. Manque de tout. Cette, cette commune manque Malade. de tout. Parce que justement, les responsables qui sont là manquent de vision. Il faut oser le dire. Moi, j'ai toujours suggéré au maire que cette commune regorge de potentialités en termes de ressources humaines et de moyens. Malheureusement, il faut un leadership fort pour fédérer ensemble ces forces-là, pour qu'ils puissent prendre en charge le développement de cette commune. Tel n'est pas, pas le cas parce que justement, il y a des guerres politiques, ouais. il y a des, des, des politiques qui font ouais. qu'aujourd'hui, cette commune ne peut pas avancer. Ouais. Ça, c'est inadmissible. inadmissible et qu'on ne peut plus, en tout cas, continuer à, à, à, à gérer cette situation. Donc, j'appelle le président, et le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, et toutes les autorités de ce pays à venir régler le problème de Ndiaye. Ndiaye ne peut plus aller. Vous un combat citoyen ou politique, vous Citoyen. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti. Bon, je parle à la télé. On ne jamais vu militer dans un parti. bon, en tout cas, de toute façon, même s'ils sont membres, c'est les citoyens du pays, de, la commune. Mais en tout cas, moi qui vous parle et qui ai pris l'initiative d'organiser cette rencontre, je n'ai jamais milité dans un parti et je n'ai jamais fait de la politique. Mais quand même, ce qui m'intéresse, c'est la commune, c'est le développement des citoyens, c'est le développement des populations. Prochaine Le déclic, c'est quoi C'est véritablement permettre, conscientiser la population et même toutes les autorités que maintenant Ndié doit pas rester croiser les bras, Ndié doit se lever debout comme homme pour revendiquer l'intérêt de, cette commune-là. Et la prochaine épreuve, comme vous il y aura un grand forum. Un forum, je bien. Un grand forum qu'on organiser ici, dans la commune, et qui l'ensemble des acteurs et toutes les personnes, les fils de ce terroir, même qui sont dans la diaspora, on va les convier à venir assister véritablement à ce forum-là, qui va aller en profondeur sur toutes les difficultés liées à cette commune. Donc ça sera vraiment un diagnostic sans complaisance pour un peu identifier l'ensemble des problèmes et pour pouvoir euh, naturellement euh, trouver des solutions appropriées.